المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokk juliti asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonte bi salallahu alayhi wa sallam di leen nuyu nuyu lislaam di nuyu suñu papa yi teew fii di leen massawu coono di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokku wér te yàggal leen tamit suñu kanam kon mel na ni dañoo jéem a daje tey jii ngir mën a barkeelu yenn ci ay ayat yi nga xam ne ñu ngi ko jukkee ci suratul isra mu nekk surat bu am solo bari ay njàngale waaye dañ ciy daal di tënk rek ci yenn ci ay ayat ci biir surat bi jéem ko nafar ànd koog Oustaz Sayd Ly mu mun ñoo firil yenn ci ay ayat bu ñu paree ci loolu bu bu ko temps bi mayee ñu daal di poser ay questions. ngir mën a leerlu yenn ci ay ci ay masala kon pour bañ a guddal dañuy daal di bàyyi Oustaz Sayd Ly mu daal di tàmbali waxtaan wi salaamaaleykum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ci kàttanu buur yàlla tabaraka wa taala ñu fas yéene dugg ci jaamu yàlla bu màgg bi nga xam ne jaamu gënu koo màgg te mooy jéem jéem jéemantu tekki lenn ci kàddu yàlla tabaraka wa taala yi mu ñu tënkal ci suratul isra lu tàmbalee aaya ñaar fukk ak ñett ba tollu ci aaya fanweer ak juróom-ñeent diggante boobu borom bi tabaraka wa taala mu ngi fay gaaral di ñu jàngal lenn ci ay teggin yoo xam ne société daf ko war a am mbooloo mi dañ ko war a dund jullit ñi dañ ko war a mel ay jikko yu rafet yu yàlla tabaraka wa taala bëgg jaamam yi jikko woo ko moom yàlla mu ñaax leen ci mu wax ci alquran woo jullit ñi pour ñu caqoo aaya yooyu jikko yooyu pour lan li yakuna hadha al mujtama al misaali al fadil ngir société bi mën a am ay misaal ay jikko yu rafet ak ay melokaan li tàmbalee aaya yooyu ma leen wax léegi mooy aaya ñaar fukk ak ñett ba aaya fanweer ak juróom-ñeent lii ma wax léegi léegi ubbee ko loolu la aaya yi di jàngale. aaya yaa ngi ñuy woo pour ñu am ay melokaan yu rafet ay jikko yu tedd pour sunu société mën a baax société mënul baax su fekkee seeni jikko baaxul problème bi Sénégal gën a manqué tey mooy jikko yi ñoo yàqu. biir ak biti lu dul ko yàlla baaxal day jikko yépp a bon lii ñuy jooy fii ay courant yu coupé ay nangam ak nangam ak kii yu seer dara jikko yu yàqu rek parce que jikko yu yàqu yooyu moo tax réew mi yàqu moo tax xaalis bi ñu war a def fi ñu ko war a def duñ ko def ñu def ko feneen moo tax musiba daal nii dal borom bi tabaraka wa taala mu ne baad aoudu billahi min alshaytan arrajim بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira aaya yu njëkk yooyu muy ñaari aaya borom bi nee na ginnaaw ba ma attee ba ma dogalee man sa borom ma santaane bu ñu jaamu kenn kudul man li ma ci teg mooy sa ñaari wayjur wa qada attena ay hakama taala wa amara bi alla taabudu ilahan gayrahu wa qada attena dogal na moom buur tabaraka wa taala rabbak sa boroom rabbuk lan la dogal lan la atte mooy alla taabudu bu leen jaamu illa iyahu kudul moom jaamu kudul yàlla bokkaale la ku ko def dugg safara bokkaale moom yàlla du ko baale ak ku ko mën a def nag ku ko mën a doon dangereux gi dangereux bokkaale moo tax yàlla joxoñ yonent yàlla muhammad baaraam ne ko la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxaasirin giñ naa ci sama màggaay man yàlla bis boo ma bokkaalee yow muhammad say jëf yàqu na la in ashrakta la ko wax soo ma bokkaalee la yaxbatanna amaluk kan la yàlla di waxal muhammad kon keneen waxi noppi bokkaale yàlla du ko baale moo tax yàlla mu ne man yàlla maa dogal atte bu ñu jaamu kenn kudul man lan mooy jaamu maa maana al ibada al ibada ibnu taymiya nee ne ismun jaamiun li kulli ma yuhibu llah wa yardaahu min al aqwali wal afali wal amali alzahira wal batina loolu mooy jaamu jaamu mooy tur la boo xam ne dafa boole ëmb làmb lépp loo xam ne day boole wax ak jëf ci yu feeñ ak lu nëbb lu yàlla gërëm loolu mooy jaamu yàlla jaamu yàlla ñu bare bari soo leen doon wax tey lan mooy jaamu yàlla ñu ne la julli la koor joxe azaka dem màkka wooru jeex na lu bari loolu moo tax sunu diine doy waar parce que jaamu yàlla gi yëpp dañ koy jëre tënk ko ci ñetti mbir julli koor joxe azaka dem màkka jeex na point koo ne doo jullit mu ne la gënoo maa nekk jullit parce que maa ngi julli fekk jaamu yàlla wax yi ngay wax sax ci la bokk dox yi ngay dox ci la bokk lépp looy def lépp looy def war naa mën a nekk ci yow jaamu yàlla xataa lekk xataa naan xataa dugg ci toilette di faj sa aajo dafa war a nekk ci yow ci jaamu yàlla nit day dugg ci ci duus am tiyaaba faj aajoom ba pare am tiyaaba lu tax parce que bi muy dugg dafa dugg dugg ibaada jaamu yàlla moo tax bi mu ñëw ba ci bunt bi mu dugal tànk càmmoñam ne bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-xubusi wal xabaa'is daal di dugg bu fekkee ci àll la mu bañ a jublu penku bañ a jublu sow bala muy egg suuf mu bàyyi bala muy tekki tubéyam wala tekki sërëm mu daal di bàyyi ba egg suuf bu fekkoon dafa ànd ak nit moo nit ki ñu tàqalikoo lu sori pour nit ki bañ ko gis su paree mu jël ndox defaru ak loxo càmmoñam ba pare daan ne xufraanaka gis nga mu nekk ñaar faj na ajoom am na tiyaaba parce que nekk na ibaada waaye nit bu ñëwee def ko noonu kese daal di génn dem yoonam dootul nekk jaamu yàlla mais dafa faj ajoom rek terminé te jullit moom yonent bi dafa ne ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu xayr wa laysa zalika illa li mu'min man de yéemu naa ci mbiram jullit jullit yëppam tiyaaba la jullit mooy koo xam ne lépp tiyaaba la yonent bi ne wa laysa zalika illa li mu'min jullit rek moo am loolu jullit moo am di lekk am tiyaaba di naan am tiyaaba di tëdd am tiyaaba di sëy am tiyaaba di dugg ci oto am tiyaaba di wàcc am tiyaaba di solu am tiyaaba loolu jullit moo ko moom lu tax parce que lii tàqale diggante aada ak jaamu yàlla yéene bi la yéene moo tax yonente bi ne innama al amal binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa jëf yi jëf yi ñuy jëf xam nga lan moo ko def aada ak lan moo ko def jaamu yàlla mooy mooy mooy yéene ki nga xam ne dafa ñëw léegi wàcc ñu tegal ko añ muy añ ñaar ñaar la war a am ci añ bi biir bu fees ak tiyaaba mais xam nga tey lu tax suñu mbir doy waar mooy biir bu fees rek lañ ciy jëlee pour yow boo wàccee bu ñu lay jox añ dañ la war a jox rek bu ceeb bi seddee nga kaas bu saful xorom nga kaas bu ëppee kaani nga kaas terminé boo lekk pare may la ma ndox ñu may la nga daal di jaaxaan ne xaar ma noppalu fekk dafa war a nekk ci yow jaamu yàlla nga jàng liñ la jàngal ci booy lekk ak niñ la jàngale nga war a lekk ak soo paree liñ la wax nga def soo paree nga am ñaar nga am biir bu fees am tiyaaba tey nag yàlla daa natt jullit ñi ay biir yu fees kese la ñuy yor mais duñ am tiyaaba mboolem li ñuy def ci sunuy sunuy adduna kenn du am tiyaaba ci dara nag lu tax parce que duñ ci jublu jaamu yàlla yàlla nag tabaraka wa taala ginnaaw ba mu dogalee santaane bu ñu jaamu kenn kudul moom allah taabudu illa iya mooy bu leen jaamu kenn kudul yàlla jaamu ñu bëri leen yenn saa yi nga gis leen ñu dugg ci yenn jëf yoo xam ne yàlla moo ko moom ñu koy defal nit wala ñu koy defal rab wala ñu koy defal garab wala ñu koy defal dara jaamu yàlla dafa sew léeg-léeg nga gis nit ñi dugg tribunal waaye ubbi daal di dindi seen mbax ne foofu lan lañ tudd lan lañ wax tribunal lan lañ ko tuddee ñu ne mbax ne benn la fay nekk benn ah fa mbax ne nekkee kan moo koy sol pourtant dañuy dugg jàkk ñun ñëpp ñu sol suñuy mbax na tribunal ak jàkk lu gën a for suñu mën a mëgg suñu mënee màggal tribunal bàyyi néegu yàlla ah nga dugg tribunal procureur bi woo la nga ñëw di toroxlu ci kanamam te boo duggee ci néegu yàlla doo toroxlu nu la neex ngay doxee ci biir nu la neex nga yëkkate sa baat xamoo yaa ngi ci néegu yàlla est-ce que loolu du jaamu benn waaye dafa daf ñu jox misaal ci loolu ne da ngay dugg ci benn kër kilifa diine nga fekk fa benn waay mu ne la salaamaaleykum ma ne ko waaleykum salaam mu ne yow da ngay ñëw fii ndek nga ne ko waaw man kii sama xarit la mu ne yow de bëgg naa la bis ni ki tey fekk fanweeri at yéen a ngi julli ndaw ci jàkk ji mosulaa bëgg parce que tey fekk na la ci kër mbëndeef mu bëgg la te téeméeri at yéen a ngi daje ci néegu yàlla bëggu la ana ana ibaada bi ñuy wax jaamu yàlla dafa sew soo moytuwul da ngay tarxiis wala nga nekk ci àdduna dafa ne yaa ngi jaamu yàlla ba nga dee fekk defoo dara boo dee nga dem safara yàlla nee na ban ginnaaw ba ma wéyee man yàlla dama àtte allah taabudu bu leen jaamu illa iyaahu kudul moom lu mu ci teg mu ne wa bil walidayni ihsaanan seen ñaari wayjur mu ne na ngeen rafetal ci ñoom seen ñaari wayjur ñaari wayjur amul lenn lu ñu war a def ci ñoom lu dul rafetal lu baax benn boroom xam-xamu tukulóor bu tudd Yunus mu ne alquran téeméeri saar la ak fukki saar ak ñeent wër nañ lépp ne la sa kilifa gënal sa ndey ak sa baay mu ne gisuñu ko ci alquran yàlla nee na ba ma jàllee rek ndey ak baay amul keneen tout court gàtt bi yàlla paase yé kan la ci yàlla teg wa bil walidayni ihsanan sa ñaari wayjur ndey ak baay ñi la tax nga gane àdduna yàlla nee na nga rafetal ci ñoom nan la ñuy rafetalee ci ñaari wayjur alla tuhsinu an tuhsinu ila al walidayni ihsanan qala al mufassirun qarranat ala bi ibadati birri al walidayni li bayani haqqihima al azim ndax ñaari ak wayjur dafa rëy kan ci ñun fi moo mën a fay ndeyam ak baayam kan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dénkaane dafa ne ridal walidayni ridallah fi ridal walidayni ngërëmal yàlla mu ngi ci ngërëmal ñaari wayjur ngërëmal yàlla mu ngi ci ngërëmal ñaari wayjur soo bëggee soo bëggee yàlla kontaan ci yow fexeel sa ñaari wayjur kontaan ci yow ci lu neex yàlla dañu laaj Abdullah ibn Abbas benn waay ne ko man de samay waajur defal naa leen lu ne sama papa sax bi muy bi muy aj dama ko boot di daw ak moom safa ak maro mu ne ko defala goo ko dara defala goo ko dara hadis moo ñu jàngal aljanna taxta aqdaamil ummahat aljanna moo ngi seen suufu tànku yaay kenn ci ñun aljanna soriwu ko aljanna mu ngi sunu suufu tànku yaay yi yonti yàlla Moussa laajoon yàlla tabaraka wa taala ne ko man damay dugg aljanna yow yàlla yàlla ne ko waaw waaw di nga dugg aljanna kay mu ne yàlla bu ma duggee aljanna est-ce que dina am àndandoo yàlla mu ne ko waaw mu ne bëgg naa xam kan laay àndal biir aljanna yàlla mu ne ko taxawal ci mbedd bi ku la njëkk a romb kooku la Moussa taxaw mu jékki-jékki rek benn xale bu góor romb ko mu ne ah kon de kii la waaye nag foog ma topp ko ba ma xam lan la def ba nekk sama àndandoo xale bu góor baa ngi yor fet yor mbuus ndeke bu xëyee suba day dem àll bi fett ay njombor rabu àll yi dagana lekk reen di def ci mbuusam ñëw lakk ba mu ñor indil yaayam mu lekk bu ñëwee génne yaay ji lal basang bi ci digg kër gi wéer yaay ji ci garab gi jox ko mu lekk ba suur mu jox ko ndox mu daal di yenn waat yaay ji tëral ci kaw lal bi génn waat utiwaat leneen lu lu yaay ji lekk bi mu defee loolu Moussa taxaw di xool ba yaay ji suur mu dugal ko ci biir génn lem mbuus mi romb Moussa Moussa téye ci mbagg yi ne ko ki nga doon jox mu lekk lan ngeen bokk mu ne ko sama yaay la mu ne gis naa bi nga ko joxee mu lekk ba pare balaa nga koy dugal ci biir néeg bi gis naa ko mu lay ñaanal lan la la doon ñaanal mu ne sama yaay saa yu ma ko joxee mu lekk wala ma jox ko mu naan dina wax allahuma ij'al ibni haza maa musa ibnu imrana fi ljanna allahumma ij'al ibni haza maa musa ibnu imrana fi ljanna yow yàlla sama borom maa ngi lay ñaan sama doom ji yal na nga ko booleeg Musa doomu imran ci aljanna ëllëg lan la Musa wax xale bu góor bi abshir fa ana Musa fa anta rafiqi fi ljanna dégal yow xale bu góor bi man maay Musa yow yaay sama àndandoo ëllëg yowmal qiyaama yaay sama àndandoo xale bu góor ba mbokk yi fan la amee aljanna mooy ci ñaanu ñaari way juróom ci ñaanu way juróom jullit sa ñaari way jur la la yàlla dénk qada ay xakama an laa naabudu illa iya wa bil walidaini ihsana dañu ne làmp kañ lay am njëriñ guddi yàlla bi mu nee way jur lan la ci teg ihsaan amul leneen ihsaan mu ngoog ihsaan mbokk yi lan mooy sabab yàlla mu ne doomu aadama na rafetal ñaari way jur luy sabab mooy xoolal sa ñaari way jur fu ñu tàmbaleeg yow balaa ngay judd biñ la ëmbee ba bi nga juddoo namp boot nampal ah ba nga mën a tekki olof yi dañuy wax ne peccum liir bu neexee ndey jaa jàpp ca mbagg yi ñun ñu toog fii yëpp bu ñu jàppuloon suñuy mbagg kon tey du ñu mën a sotti góor ak jigéen nag képp ku toog fii rek sa ñaari wayjur bu ñu jàppuloon ci yow doo tekki doo sotti kon amoo droit màgg di sakk jëf amoo droit màgg di sakk jëf lan moo la war sa digganteeg sa ñaari wayjur mooy teral rek teral amoo leneen teral lu rafet lu baax ci wax ak jëf mais gis ngeen tey yëf yi daa dëpp xam ngeen lu tax yëf yi dëpp xam ngeen lu tax kenn mënutul toppatoo ndey ak baayam xam ngeen lu tax kenn nangootul nekk ci sa suufu ndey ak sa baay parce que li yàlla wax ni ja yaruñu ci nit ñi lan moo yar nit ñi yeneen éducation lañ ñu jox yeneen yar lañ ñu jox yeneen aada lan lu woon moo tax nit ñi mënatuñoo toppatoo seen ndey yeeg seen baay yi bu nit ñi xamoon lislaam li mu santaane kon nit ñëpp tey danañ daw mën a langaamu ci lislaam pour adduna bi am jàmm lan la ci yàlla teg mu ne imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima yàlla nee na sa ñaari way jur yi ma la dénk kañ laa la gën a sant sax ñoom ñaar nang leen toppatoo mu ne buñ demee ba mag imma yablughanna indaka alkibara suñ demee ba màgget ñoom ñaar kenn ci ñoom wala ñoom ñaar yëpp ñu màgget ñun tey bu sa papa ak sa yaay màggetee boo amee ay gan sax da nga leen di rus a présenté au contraire sax da ngay toxu dem dëkk fële Nord Foire wala nga dëkk Maris wala nga dëkk fan nga dëkk foofu quoi bàyyi sama vaccin ay fële ci ginnaaw njongolor wala bu dee ci kër gi nga nekk ak ñoom ci ginnaaw kër gi ginnaaw sa néeg ak saal rek nangam nangam fële ñoom nga bàyyi leen foofu waaw booy amay gan sax yenn saa yi bu dee ñenn ñi nga xam ne ay tubaab lañ ne sa papa ak saa yi tey bu leen génn naa dama amay gan ngeen toog foofu ji bu leen génn ci biti bu doomu aadama demee foofu ba ñemewu ñemewoo présenté sa papa ak sa yaay ne ñii ñoo ma jur ñu ngi nii toog ki mooy sama yaay ki mooy sama papa nga amay gan rus leen a présenté fu jëm te yàlla ne woon ñoom ñaar maa ngi la dénk ginnaaw nag buñu demee ba mag allahu akbar moo tax daal doy na waar jikko tubaab yi lañ yor maison lan tubaab lan lay def bu yaayam papa maagee de mu yóbbu leen maison de retraite yóbbu leen woon ne dama bu ngeen nekk bi da ngeen may tànqal quoi moom ba mu bëgg noppal ñun tamit commencé nañ ko de commencé nañ ko fii di yóbbu sunu papa ak sunu yaay fan maison de retraite ndeysaan kañ la ndénkaane gën a for bu kenn ci ñoom màggete wala ñoom ñaar ñoom ñu màgget yàlla ne fala taqul lahuma uffin allahu akbar borom xam-xam yi ne bu yàlla xamoon baat bu gën a tuuti uff da koy wax mais da ngay gis tey ku ne papaam góo wala nga tuddee sama fa Ablaye Ndiaye booy Ablaye Ndiaye a ngi fi de añu sa kàddu bu dee ci xale yu jigéen ya ñoo ñoom dañuy tuddee seen papa ay xaj xaj da nga dajeeg benn xale bu góor mu ne damaa bëgg a ñëw seen kër ndax seen kër am na xaj mu ne non non amul xaj kuy xaj bi dama leen laaj kuy xaj bi paa bi mooy xaj bi est-ce que seen kër am na xaj mu ne déedéet amul xaj lan mooy xaj bi est-ce que sa papa dina lekk fiiriir mu ne déedéet du lekk fiiriir de loolu mooy la ndax fiirul su ne day lekk fiiriir xam nga baat yu bon yooyu tey ñun moom la ñuy wax sunu papa yi yàlla ne bu leen wax uff wala taqul lahuma uffin lan la ci rek wala tanharhuma bu leen gëdd bul arsale bul yuuxu waaye wa qul lahuma qawlan karima mais au contraire la rek ku ne dama naan tat ne paa bi wax paa bi raay te paa bi yéen a ko bàyyi ci nu nekk tat laay def wax ko raay yow bi nga ne cocc mënoo wax raay boo nee tat di nga wax raay wala tat laay def ak paa bi raay wala moo ko ngeew paa bi yéen a ko waxul dëgg bàyyi leen moo ko dëgg allahu akbar ndeysaan ku yàlla ne woon wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma bul gëdd sooy wax sa baab amoo droit taxaw moom bu toogee yow amoo droit taxaw bu toogee yow da nga war a jonkoon sooy wax yéen ñaar bu fekkee ñetti nit ñu ngi fi keneen amul droit dégg yéen ñaar rek sa gémmiñ noppam est-ce que ñun loolu la ñuy dundee rek ñaata yoon ngay dégg Sénégal ku dóor papaam ñaata yoon nga ko dégg ci rajo bi ku dóor papaam ku rey papaam ku dóor yaayam ku rey yaayam ñaata yoon ngeen koy dégg chaque jour bu bu tribunaux yi di àtte criminels yi duñu ubbi ci ndakaaru ba Sénégal jeex duñu ubbi tribunaux yi ba mu jeex lu dul di nga ci gis ku rey papam wala ku rey yaayam non waa ji dafa drogué wala maire bi dafa wax rek mu saañ ko paaka bi moo tax Sénégal bu yemee ci courant bu coupé sant leen yàlla Sénégal dañoo war a alhamdulilah rabbi am ci jafe-jafe yu ndaw ndawaan yi dal suñu kaw parce que réew mi dafa bon fépp lu bon ñëpp ñu bon lu ñu doon def yàlla di leen alak ñun dañoo yegg foofu li gën a graaw sax mooy ji xale jigéen yi def taas neen ci mbedd yi te kenn du ko wax xale bu jigéen bu dee bay check down di génn lii xottitaat yi ci biti du dootul sax jiital lépp génn te ci biir kër yi la ñuy génne te ñëpp seen ndey ak seen baay nekk ay julit ay Fatima Khadija Umu Kalsum Zaynab kenn du wax ween yi ci biti ko war ne mën a damay paccal pompe ween ba mu toll ne pompe yu muus di ko génn ci biti te ñu waxoon almara kulluha awra ma adal waji wal kaf ñëpp noppi ngeen ne da ngeen di dund lu neex ah alxuraan lu mu wax wa man arada an zikri wala loolu du alxuraan ah yéen tamit yàlla moo ne sama njub gi ku ko dum mooy dund dund bu metti wala loolu du alxuraan ngeen bëgg dund mooy yàlla ba pare am courant di lekk di naan ngeen nekk sécurité ah kon alxuraan du dëgg yàlla wax yàlla moo wax dëgg wa man aarada an zikri bu Ablaye Wade demee it bu ngeen ko dóoree ay xeer ba mu dem yàlla indi ko gën a soxor Ablaye Wade mu toog ndax alxuraan moo wax dëgg wala nabluwannakum wala nabluwannakum gis ngeen dama leen di nattu wala nabluwannakum bi shay'in min al xaw xoola bi shay'in min min tuuti tuuti la yàlla bu indi woon xawfu kon ñëpp dee waaye minal xawf min tuuti tiit ngeen tiit mooy li am tey ñëpp a tiit maa ngi wax ñii léegi gaaw leen damay ñibbi timis du ma ko su ma fekk parce que ñun suñu fee timis kenn du génn wal juu yaa leen dama leen du ngeen xiif ñu ngi nii Sénégal amoon na ay at bu paa yaa ngi ni toog mag ñaa ngi ni toog amoon na ay at est-ce que di ngeen gis ñuy jaay fonde ci mbedd yi kër goo dem ñuy reere fonde da nga naan ndeysaan ñii dañuy wala kaana lañ laa ilaha illallah Oustaz nga baal ma wala togg añ ci bureer
kër goo dem ñuy lekk fonde tey patron yi ñooy reere fonde Dakar maire yi jaay fonde dañuy jeexal tak da ngay gis maire bi di commencé teg ci heure bi rek maire abonné naa
dëgg la de
wala ak cere ñi jaay cere yi juróomi dërëm cere fukki dërëm maire cere maire cere maire fonde maire kinkiliba maire xamul waaw léegi lu ñu nit jaay guddi jaral nit ñi loolu mooy juu juu baango carton carton yii carton yii lan la ko xale yi doon doye lan lañ doon doye kees carton yi xale yi dañu ci doon dugg di puusante ci mbedd yi léegi ñenn ñi loolu moo koy lekk xar yi gisatu leen fi kees ana carton xooleen mbedd yi baa ngi nii koñ ba koñ doo fi gis carton bi tamba mbalu ah ah léegi yàlla moo wax dëgg mbokk yi alxuraan bi yàlla moo wax dëgg kenn munta am dëgg ci kaw yàlla tabaraka wa taala alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir yàlla nee na maa bind man mi bind maa xam li ma bind man yàlla bu ma waxee ne ngeen ne du loolu da ngeen di sonn yaa abd anta turid wa ana urid fa in aataytani maa urid aataytuka maa turid fa in naazatani fi maa urid atbaatuka wala yakunu baada dalik illa maa urid hadisu kursi yéen jaam ñi damaa leen a bind soxla ci yéen ngeen soxla ci man su ngeen ma defalee li ma bëgg ma defal leen li ngeen bëgg su ngeen lankee bañ maa defal li ma bëgg ma sonal leen ba say seen baqate yi na bàcc te mbir mi du yàgg lu dul man yàlla li ma bëgg mooy am yàlla nee na sunuy wayjur wala taqul lahuma uffin bu loo oof wala tanhuma bul gëdd daal xale yu góor ñoo fi harcelé seen papa di harcelé di yuuxu surtout nag bu waaj a tekkee tuuti du mën a joxe dépasse pas bi retraité ah xam ne léegi dooleem bëreetul ah waa ji léegi moom mooy ñëw nekk papa ji papa ji sax léegi bu ko séenee mu ñëw papa jiy jóg di ko nuyu ji moom bu ñëwee sax du jàll du dem nuyu ji paa bi day ñëw rek daal di jàll saalam paa bee ñëw ah Abdou wàcc nga ay wàcc naa way bu dee xale jigéen ñi seen yaay yi ñoo leen di fóotal waaw ale maa fii wàcc nga mama wàcc naa seen wey ni lañ koy def du ñu fóot nii kenn du ci fóotal yaayam sa yaay moo lay fóotal li yonent bi waxoon bokk na ci axiru zaman alaamatu saa an talidal amat rabataha jigéen jur sangam su jigéen demee bay cakkar-cakkari doomam doom jooy nekk ci kaw di kokor kokor yi yaay jeey laab doomam sët yi yaay ji mooy maam jey kuus mooy laab mooy bàcc yaay ji moom mama xale baa ngoog xes jigéen jurul sangam mbokk yi mënuñu am mënuñu am dëgg ci kaw yàlla tabarak bul kët wala ta wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima allahu akbar qawlan karima waxal wax ju tedd wa amoo droit sax naan papa loo war a wax baay al Ibrahima moo ñu ko jàngal yaa abati te kooku yéeféer la doon waxal yaa abati ay baay booy yi ah Ibrahima papaam ki mu doon waxal lan la yéeféer te mu ko doon wax baay booy yi yow nga nekk julit an pa et père et Gorgui et Ablaye Ndiaye et Ibra yooyu ay surnom la ñuy jox dañuy jox paay ay surnom yoo xam ne rafetul te yàlla ne la waqul lahuma qawlan karima mu ne waxfid lahuma janaha zulli min arrahma na nga wàcc say mbagg waxfid lahuma janaha zulli na nga wàcc waaw booy nuyu nuyul ñaari loxo asalaamaaleykum waxal wax ju nooy wàcceel say mbagg bul ngand ngandlu diplôme yi nga am jàpp ne yaaraw paa bi paa bi bu la daggalul woon ci deretam doo am lii say étude bu ci paa bi jàppul woon ay fourniture yóbbu école fay privé nangam nangam nangam nangam ba tey nga tekki du dem wala ci ki jàng même ki jàngul ah même ki nekk mbër di bëre laa wax ndeyam ak baayam bu ñu ci jàppul woon tey ba mu toll nii du toll nekk bëre su fekkoon ne sa yaay bi mu la juree pare rek dafa xoj comme yenn ñi niñ koy defee wala mu ubbi foos bi ne ko ci puccax di nga talam diplôme kon ndey ak baay am na benn waay boo xam ne jàng na ma am diplôme yu rëy ndeysaan mu ñëw rek jóge Europe rek ñëw daal di dajale ndeyam ak baayam ne leen dama bëgg ngeen wax ma lépp lu ma leen defaloon rek ma fay leen ko lépp lu ma leen lu ngeen ma mës a defal rek wax leen ma fay leen ñooñ ne ko ah mu ne woy wax leen bu leen bàyyi dara daal di leen tegal bi ak kaye ne bindi leen lépp parce que am naa dama leen bëgg a fay papa ji ne ko xaar ma bàyyi la ak sa yaay bu pare lim la defal après man ma doog a wax yaam ne ko man de dama bëgg rek nga ubbi sa biir bi ma dugg ci juróom-ñeenti weer après nga génne ma ay xaalis moom soxlawu ma ko
waaw
kan moo ko mën fii kan moo mën a ëmb yaayam ah waaw est-ce que mën nga fay sa yaay léeg-léeg ma ne xale yu jigéen yi ku bëgg a xam sa yaay mooy kan ci yow da ngay dem benn bis da ngay dem salle d'accouchement rek nga taxaw ci buntu bi bu sax dugg taxawal rek salle d'accouchement nga déglu boo taxawee salle d'accouchement jumaa ji ñuy jiite nga xam ne ci hôpital la nekk léeg-léeg nga nekk ci xutba jumaa ci minbar bi dégg jigéen ñi di yuuxu salle d'accouchement yuuxu yi di la fekk si ba ci kaw minbar bi kon nga xam ne nit mënul fay ndeyam ak baayam ah nit mënul fay ndeyam waxuma ëmb ni mu méttee waaye jur ñaata jigéen bi ñuy jur ñoo dem alaaxira ñaata ci àddina bi boo ko doon wane ñaata la ñaata liir ñoo rey seen yaay kon ñu bàyyi xel bu baax a baax ndey ak baay mbokk yi ndey ak baay dafa foor yàlla mu ne na nga leen wax wax ju baax na nga wàcce say mbagg wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira na nga leen di ñaanal bis bu nekk guddeeg bëccëg na nga wax yàlla yàlla na nga yërëm sama ndey ak sama baay comme ni ma yërëme woon bi ma nekkee xale ndeysaan wala bi nga nekkee xale ñaata yoon ngay fekk sa baaba mu añ ba pare rek nga plongé ci biir bi ah di war ci kawam di dóor ay kurpañ di xëcc sikkim bi di mbëkk di màtt di gajj waaye moom jamono yooyu ngay def loolu moom day ree rek ndeysaan di def lu kenn xamul lu nekk mu dugg ci dañu gisoon benn dof ñu ne ko yow yow da ngaa dof mu ne déedéet ñu ne ko kan moo dof mu geesu gis benn paa bu yor doom mu ne dof baa ngi nii mu ne xool leen ko ñu jékki-jékki rek xale bi xëcc si kim paa bi rek paa bi ne ko ey mu ne xool leen xool leen lu muy def dof la war a borom kër day nekk dof bu amee njaboot lu tax parce que njaboot gi moo koy def loo lu ne loo xalaat rek njaboot gi dina ko def loo kon doomu aadama yàlla tabaraka wa taala li mu wax ci moom mooy ndeyam ak baayam bu ñu demee ba màgget yonent bi sax dafa wax ne ku bàyyi ñaanal sa ñaari wayjur sa sa wërsëg doo ci gaaw a jot ku bàyyi ñaanal sa ñaari wayjur sa wërsëg doo ci gaaw a jot da ngay kër ci kër ci ba sonn da ngay jàng ba dof déposé fu ne doo nga am dara parce que da ngaa bàyyi ñaanal sa ñaari wayjur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ay waay yàlla yal na nga yërëm sama ndey ak sama baay comme ni ñu ma yërëmoon moo nekk xale allahu akbar xale xoolal rek jigéen bu bootee muy taw mu yor pression kan lay tiimal pression bi boppam wala doom bi ah doom bi même bu doon daanu ni di wàcc escalier di bëgg a daanu kan lay fexe mu mucc doom ji moom na gaañu jàngeen histoire wu nuux keroog bi yàlla di alak noonu mondum nuux am na benn jigéen boo xam ne ndeysaan bi ko ndox mi toppee ci montagne yi fekk mi ngi am doom yéeg na am doom ndox mi di ñëw di ñëw di ko topp ndeysaan dafa booroon doom ji mu daal di teg ndox mi topp ko ba fii nii la def doom ji ci kaw nii pour bëggul doom ji dee moom bëgg na dee mais bëggul doom ji dee mu def nii doom bi ndeysaan doom ji daa ndox mi daal di koy booleeg doom bi dóor ci suuf jàngeen histoire u ashaabul uxdud buur bi jàppoon nit ñi di leen sànni ci safara am na yaay joo xam ne dafa boot doom ji bi mu ñëw ba tim safara si war a dugg mu hésité pour doom ji bu mu lakk doom ji moo ko ne yaay duggal ci safara àdduna ndax yàlla musal la ci safara àllaaxira mu daal di tëb cëppéeru kon doomu aadama mbokk yi mënut a fay ndeyam ak baayam yàlla bàyyi na loolu bàyyi na wax ci léegi diggante ndey ak bàyyi dugg na ci beneen aaya mu ne rabbukum aalamu bi ma fi nufusikum rabbukum aalamu bi ma fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kaana lil awabina gafura ñu ngi ci aaya bu doy waar yàlla nee na man maa leen gën a xam li nekk ci seen xol yi Hmm. doomu aadama yàlla moo xam li nekk ci xolam moo tax xadis bi ñu ubbee woon sànq innamal amal binniyaat jëf yëpp yàlla mi ngi koy faye ci yéene jëf boo mën a jëf su yéene bi baaxul doo am tiyaaba góor gi Ibou Sakho da ciy jàngale di ci di ci wane misaal bu doy waar dafa nekk ci ay jàng muy jàng ba jàng mu ne ñi fi teew ñëpp xam naa li leen fi indi képp ku ñëw fi ci jàng yi xam naa lu la indi benn waaye dagge ci làng yi rek ne ko lu ma fi indi man mu ne ko fen loo ma déggu leen wax bi de ah ku nekk xam naa li la fi indi waaye ñu ne ko man lu ma fi indi mu ne ko fen loo ma kese moo la fi indi est-ce que da ngeen defe ne jàkka yi ñi ñooy ñëw dañuy julli est-ce que da ngeen defe ne fii ñu nekk nii ñëpp ñu fi ñëw ñëw dañuy ñëw déglu si tafsir est-ce que da ngeen defe ne doomu aadama fi mu dem rek dafaa war a dem yenn saa yi nga gis ku egsi fenn fekk fa nga egsi lañ fay def yóbbu wu la fa parce que yàlla moo xam yéene bi la fa yóbbu moo tax yàlla mu ne rabbukum a'lamu bima fi nufusikum dafa am benn waay boo xam ne da doon toppatoo ndeyam papaam dee na bu yàgg mu dese yaayam mu koy toppatoo ñeent fukki at mooy sang yaay ji moo koy solal yére moo koy jox mu lekk moo koy jox mu naan parce que yaay ji daa màgget mu dee ruu bi timsaal ci yàlla yàlla mu ne malaaka yi jël leen ruu bi yóbbu safara malaaka yi ne yàlla kii këyitam bi ñuy bind tiyaaba yi fekkuñ ci bakkaar nuñ koy yóbbee safara yàlla mu ne kii ba muy jox ndeyam ak baayam ñuy lekk saa yu joxe yaay ji mu lekk ba pare danaan allahumma xuzha wa arihni minha yàlla rey ko ba ma noppalu yéene mbaaxul waaye yow loolu ñaata ñaata nit tey ñoo naan waaye paa bi dafa war a dee ba ñu noppalu quoi sonn nañ trop ñaata xale jigéen naan mère bu deewoon ba ñu noppalu kër gi day neex fa lakkale ñaata di ngeen defe ne ñiy toppatoo yëpp wala ñiy def lu baax yëpp ci kaw nii ngay gis ci kaw est-ce que seen xol li muy wax xam nga ko yàlla rek moo xam xol yi li ci nekk rabbukum a'lamu bima fi nufusikum yàlla rek rek rek moo xam xol bi li waa ji fas yaa yàlla rek moo ko xam moo tax kenn mun yonent bi muy wax mbirum imaan lu mu wax al imaanu ha huna fan fii ci xol bi la nekk iman yàlla rek moo xam li fa nekk moo tax doomu aadama yi war a setal seen xol yi parce que yenn saa yi ngay sonn ci mbir moo xam doo ci am dara maa ngi leen di fàttali benn hadis boo xamante ne yonent bi saa salaam dafay wax ci danger ngay def te sellaloo sa yéene mu ne ñetti nit ñoo ñoo jiitu ñoo jiitu safara ñetti ñi ki ci njëkk mooy da doon jihaad ñaareel da doon jàng alxuraan ñetteel da doon joxe xaalis ki doon jihaad bi mu dee yàlla mu ne malaaka yóbbu leen ko safara lan la wax man dama doon jihaad rey naa nangam yéefar sama fas nangam sama jaasi nangam yàlla mu ne ko da ngay fenn dangaa bëggoon ñu ne jàmbaar nga jihaad woon ngir man dangaa bëggoon ñu ne jàmbaar nga wax nañ ko terminé kon dem jihaad ak nekk jàmbaar ça fait deux ki doon jàng alxuraan lan la wax yàlla mu ne ko dangaa bëggoon ñu ne sa baat neex na moo tax ngaa wax nañ ko terminé ki doon joxe xaalis yàlla mu ne ko da ngaa bëggoon ñu ne da ngaa baax foo tourné ñu sànni la ay sër yuuxu la wax nañ ko jeex na gis ngeen ñooñu amuñu tiyaam te pourtant yow bi ñu dëkkee ak yow ci àdduna ñuy def loolu yow loo wax non mais non mais kii ku baax la macha allah waaju baax a ngi nii waaju baax a ngi nii mais ci yàlla waaju baaxul parce que yéeneem baaxul moo tax yal na yéene yi sell wa innama li kulli mri'in yawma yujazi al ibadu an amalihim اذهبوا إلى الذين كنتم تراعونكم أعمالكم هل تجدون عندهم جزاء yàlla nee na bis may fay jaam yi dama naan ana ñu doon gis talu ana ñu doon def ci àdduna bëgg nit ñi gis leen ñu ne ñu ngi nii yàlla mu ne dem leen ci ñi ngeen doon won seen jëf ndax ñooñu danañ leen fay allazina hum yuraun wa yamnaun al maun iyakum wa sirqul asgar qaalu ya rasulallah wa ma sirqul asgar maza qaal ar riya mooy di def dara pour ñu gis la mooy Sénégal tey fii gis rek ngistal rek ñun ñëpp dañuy ngistalu moo tax kenn mënut a def lu baax waaw. léeg la nga dégg waa ji joxe benn tonne ciment sax ci jàkka ji daane nañ ko wax ci rajo bi nañ ko wax ba ñëpp dégg ko ana 10 000 yi ma joxe sànq ñu ne jox nañ ko lu tax waxuñu ko 10 000 kese xam ngeen léegi jigéen ñi bu ñuy natt ngeen tey dafa am kuy taxaw yor rajo. Aïda Mbengue joxe na 10 000 Kumba joxe na 15 000 ba ci jaxal yi est-ce que loolu léegi ngir yàlla la baaxatul bu xasee bu ko ñett xasee gis dégg ko rek perte nga sa 10 000 bu yebal nga yóbbu 1000 francs perte nga léeg-léeg nga gis ku feebar nga xam ne buñ ko yóbboon sër mu wér sër téeméer kenn du ñëw indi dara ñu bàyyi ba mu dee ñu dem indi ñeent juróom fukki nag teg 14 mbana. cinquante baas nga gis kenn ne kenn ñëw ne maa indi nag bi te nag boobu bu ñu ko indi woon bu waa ji siburo ñu rey ko dugal ko ci frigo bi wallahi waa ji wér wala fii ñu bëri ñu la ñu tooy ñi ñu feebar tooy moo leen rey rek dox ba tooy nag bi bu ñu ko doon sëpp bis bu ne ngoon gu nekk wallahi waa ji dee mais duñ ko indi dañuy bàyyi ba nga dee ñu dem indi nag man dama chaque jour damay wax sama waakal ku bàyyi ba ma dee mu indi nag nag bi ku ci lekk yal na nga dee fekk si ma parce que amatul njëriñ ban njëriñ la ki la waroon indil ndimbal mu bàyyi ba nga dee mu indi ndimbal bi jox ko nit ñi nit ñi lekk ko nit ñi yow ndimbal lu mu la jëriñ yaa ngi yàllaa xira ñu nekk fi di noos waa ji dafa xam ne dinañ ci lekk rek ci yàpp moroom indi nag kéeram indi ceeb te te fi mu nekk nii wallahi am na kër yoo xam ne boo fi gaa boo fi indi woon paquetu suukar paquetu suukar laa wax dinañ la gërëm am na kër yoo xam ne boo fa dugaloon saako ceeb weer wi yëpp bu yowoo sax nga bañ a ti julli da ngay am tiyaaba rek ndax nit ñi sonne léegi na nga bàyyi ba borom kër googu dee nga doon indi sa saako ceeb te fekk amaana sax moom ci saako ceeb boobu moo ko rey ñàkk ko moo ko rey loolu tey moo nekk suñu Sénégal gi bu si bëla moo tax ñun dunduñu diine dëj xoolal dëj yi ni ñu xumbe dëj yi moo gën a xumb ngénte yi ngénte rarement ñu rey nag ngénte mais dëj nag rek te du nag bu nag bu yooy de dañuy yónni ay ponkal ñu ngi indi la ko nag moo xam ne waaye yow bu ñu ko reyee cinq jours ñu lekk yàpp dëj bi ñëpp tànk ñëw toog ñi gëjoon lekk yàpp yëpp ñëw toog fekk yàpp bi jeexul kenn du ñibbi da ngeen defe ne da ngeen di dëj dëju leen de da ngeen di noos kañ la ñuy lekk yàpp Sénégal kañ la ñuy lekk yàpp du bu ñuy noos ñu nekk ni boo amoon gan sa xel ci lu muy xalaat yàpp doo xalaat sóob bi nañu wax dëgg yàpp kay noos a tax mu jóg wala léegi nag lu ana ana ana ana yàpp ak dëj ah ay dëj kanet kanet ndox yi sedd benn dëj bu ma demoon ma dégg ñu naan ñi- njëkk yi indi woon nañ syndicat caakiri ci suba dañ leen ko war a fay syndicat caakiri ci dëj keroog dama tiit waaw dama tiit keroog noonu yàlla dafa sutura dañuy forek Sénégal dañuy forek moo tax yii dal nu nii ñuy gis ni nattu yi wallahi du hasard baax na nañ dem rek yàlla nee na rabbukum man seen boroom aalamu maa xam bi maa fii nufuusikum lu nekk ci seen dënn yi in takunu saalihin bu nga nekkee ñuy sellal ñuy def lu baax fa innahu kaana lil awaabina gafura man yàlla ñi ma jéggal ñi baax ñi ci yéen du dara ci man al awaabin mooy ñiy dellu ci yàlla guddeeg bëccëg di jooy seeni naafila guddi ñuy fanaan ak guddi di jooy ba ba set di jàng alquran di zikr di tudd yàlla di dellu ci borom bi tabaraka wa taala ñooñ ñooy al awaabin dañuy dellu ci yàlla di jooy guddi ak bëccëg ngir yàlla tabaraka wa taala baal leen jéggal leen seeni bakkaar in takunu salihin ay in takunu qasidina lil birri wassilah duna al uquq wal fasad fa innahu jalla wa ala yatajawaz an sayiatikum wa yaghfir lil awabina wa hum allazina kullama aqta'u ay aadu ila rabbihim mustaghfirin ñun ñooy awaabin mooy ñoo xam ne lépp lu ñu def ci ay bakkaar du ñu tëdd te tuubuñu ko ci ay wax ak jëf yàlla nee na ñooñu ñoom ñooy awaabiin borom bi tabaraka wa taala mu ne wa aati zal qurba haqqahu wal miskin wabni sabil wala tubazir tabzira wa aati zal qurba haqqahu joxal say jege ñaale seen àq wa aati zal qurba joxal way jege ñaale yi ki nga dendal sa jege ñaale haqqahu àqam ñun ñun tey yi gis benn sàmba àllar du dimbali ay mbokkam du may waa këram du leen jox ñu lekk du leen jox ñu naan te bu génnee 10 000 yaa ngi dàqante ci mbedd bi këram le dunduñu lekkuñu naanuñu te yàlla mu ne joxal say way jege ñaale seeni àq wa aati zal qurba ñi la jege ñett ñoo la jege kenn ki yéen a bokk ndey ak baay bokk foo kooku yéen a bokk lan deret ba pare bokk diine ba pare bokk kër ñetti àq nga ko yoreel ñetti yëpp da nga ko ko war a jox déggu leen wax bi de xaqahu àq boobu yàlla di wax ñetti àq la àqu mbokk deret gi àqu dëkkaale gi ci kër gi ak àqu lislaam ñetti yëpp bul ci fell benn am na koo xam ne ñaari àq nga ko yoral da ngeen a nekk ay jullit àq jullit da ngeen a dëkk àqu dëkkaale am na koo xam ne benn àq da ngeen a bokk dëkk bi rek du jullit bokk leen deret gis ngeen ñii ñëpp ku nekk yoral nga ko àq léegi nag yow boo bàyyee sa mbokk yi la jege nga dem di tambaambalu ci mbedd yi di wane mbaax di wane tabe fekk kër gi nga dëkk 1000 francs nga fay joxe daal ne añ ak reer rek ndékki la boo génnee di galaw yaabe ci mbedd yi jaar ci restaurant yi lekk ba suur doog a ñëw waa kër gi di bëgg a dee ci ay mbaxal ak sombeeg dëxin yow ngay wiiri koñ est-ce que googu joxe nga àq yi ah wa atizal qurba haqqahu joxal way jege ñaale yi seen aq wal miskin miskin yi nga dëkkal jox leen seeni aq ci sa li nga am miskin yi moom tey dunduñu ne kenn du leen jox dara miskin ku bàyyi say mbokk way jege ñaale nooy joxe miskin imam ali yàlla tagg na ko ci alquran lan la def Hussein moo feebaroon mag soxnaam Fatima ñu waat ci yàlla ne bu Ousseynou wéree dinañ wooral yàlla ñetti fan ñu woor ba ngoon Ali génn dem lijjanti ji ndogu ñu dem bay ndogu benn jaam ñëw ñu jox ko ñu continuer ndoguwuñ xëdduñ deuxième jour bi ñu woor bët set Ali dem lijjanti luñ ndogoo ba ndogu bi ñor kan moo ñëwoon sànq jaam miskin daal di ñëw ñu jox ko ndogu bi continuer ndogu wuñ xëdduñ troisième jour ña- ñan ñoo ñëwoon sànq miskin ak yatim asir daal di ñëw mooy jaam troisième jour boobu dañoo xëm te bañ leen di jox lan lañ wax innama nutimukum li wajhillah wala innama nutimukum li ñu leen jox li wajhillah bu ma génn ci mbedd mi nga koy wax de di ma yuuxu naan Diop jërëjëf Diop ñaa comme ni ko mbedd mi di defee léegi te sax léegi da nga koy def ba pare waa ji génn nga génn waa ji waxu nga ni kii pare naa ci parce que démb la fi ñëw maa ko jox lu mu reer maa ngi romb ni muy ignorer affaire bi waxu ko sax ci kanamu mbooloo mi soo yàlla dootuma ko joxati wala mënuñu am dara dañuy perte rek mënuñu am tiyaaba mbokk yi parce que sunu yëpp dara baaxu ci miskin yàlla la wax innama nutimukum li wajihillah ba pare ñu ne la nuridu minkum jazaan wala shukura ñun dey bëgguñu ci yéen fay bëgguñu ngeen sant ñu yàlla moo tax ñu def ko Abubakar Saddiq keroog ba masta waxe yaay Aïcha dafa njaaloo kan lañ tuumaal njaaloo yaay Aïcha Aboubacar Sadiq fekk ki ko tuumaal njaaloo ko wala mi ngi kër Aboubacar Aboubacar moo ko logé jox ko néeg moo ak ay doomam ak jabaram ba pare di ko jox mu lekk di ko jox mu naan lan la Aboubacar wax giñ naa ci yàlla ne kii dootum ko jox mu lekk dootum ko jox mu naan yàlla ne xanaa taxu moo su fekkee maa tax dépense bu mu manqué Aboubacar giñ naa ne lu ma doon def benn dinaa ko def ñaar ndax man kii yàlla rek moo tax ma koy jox mu lekk mu naan kan lañ tuumaal njaaloo Aïcha as-siddiqa bintu siddiq xoolal ñun fii nañ xool suñu bopp waxuma la tuuma la njaaloo waaye xool la rek waa ji la xool fekk yaa ngi ko doon jox bis mu nekk téeméer da ngay xëy na ko noonu ba nañ ko bàyyi quoi parce que barki dem romb naa la xool yi nga ma xool il paraît xool ku iñaan la quoi loolu mooy suñu problème fii Sénégal Sénégal duñ def yàlla kese kese kese foog rek mbir mi am lu ci nekk yàlla kese kese non foog affaire yi am lu ci nekk moo tax ñu am problème yàlla mu ne wabnu sabil ak doomu ku nekk ci yoon ku tukki nekk ci yoon étranger mooy ibnu sabil koo xam dafa jógee beneen dëkk ñëw ci seen dëkk tumaranke yàlla mu ne na ngeen ko dimbali ñetti nit nga war a jox zil qurba ak miskin ak ibnu sabil dañ leen war a dimbali ñoom ñett yàlla mu ne wala tubazir tabzira bu leen yàq ak yàq wala tubazir tey Sénégal dañu yàq yàq rek yàq rek dañuy yàq ci xew yi yàq ci lépp rek togg yàq rek waxuma dara mais mais ci yére yi ñuy sol dañuy yàq dañuy gis koo xam ne armoire bi 40 yére mi ngi fi complet te teral day xotti rek di teg lan la wane wu rek bis bu nekk benn yére man man koñ bi xam nañ ma bu ma sol tey du ma ko sol suba waxuma dara sax daal yeeg saag yi bi mu nekk nii am na kër yoo xam ne saag yi rek dañoo occupé ay ay armoire saag saag saag saag kese lu tax ak ay dàll saag dàll xoolal ñoom benn ali bi ñu leen jàppee bi ñu leen bi ñu leen génnee nii seen jabar yi la ilaha illa anta subhanak daanaka avion yi mënul woon dem ndax ay saak ak ay daal dañuy daw lo- loolu ban diine la ah yow yére boo yor nga ni naa ci yor daal naa ci yor jaaro naa ci yor saak naa ci yor kurus sax naa ko ci yor ah loolu moo fi rek di yàq rek di yàq rek alal joo xamante ne loolu sa fukki téeméeri saak kay benn doy na ci kaanu min ixwaani shaytaan wa kaana shaytaanu li rabbihi kafuura yàlla nee na yàqkat yi mbokk seytaane lañ te seytaane dafa weddi boroomam jullit moomul yàq jullit moomul yàq yàq bi ñuy bi ngeen di dégg ñuy wax question jël am ndeysaan Cheikh Ahmad Bamba dafa jékki-jékki mu ne ndax fii amul kuy yàq dugub ndax ku yàq dugub nekku fi gaa yi ne sëñ bi dugub nit dina ko yàq dugub balaa nit am ko li muy daj mu ne waxuma loolu de ñu ne loo wax mu ne yàq dugub mooy réer ba suur dem reesali ko fu neexul yàlla loolu mooy yàq dugub yàq rek Sénégal lan moo leen indil fii ñu toll nii yàq jël alal ji di ko def fu ñu ko warul def seen monument bi ngeen tabax fii monument bi lan la leen njëriñ ndax bu ngeen xiifee da ngeen koy lekk dem leen du ngeen ma wuyu monument bi lan la leen yokk mu xaalis monument bi mënuloon ñëw ci courant bi loolu la xaalis monument bu ñu ko dugaloon ci courant bi courant bi dina coupé wax leen ma dama leen di waxal dama leen di laaj ngir yàlla alxuraan ngeen yor ma ni monument bi ñaata milliards lañ ko tabaxee ah 17 milliards suñ ko dugaloon ci courant bi courant bi dina coupé théâtre bi ngeen tabax fi barki démb fi ngeen di feccee ñaata milliards la ah 7 milliards voilà ah kesman bi ñaata milliards la billahi fenku laa jublu yor kaamil wallahi Sénégal duñu am jàmm da ngeen defe ne yàlla moom subhanahu wa taala moom lal ay fo fo fo di jël ay caaxaan ay milliards di ko def ci ay caaxaan ay miskin toog fii tey duñu lekk duñu naan di yuuxu guddeeg bëccëg nekk ci lalu hôpitaux yi feebar jeex na musiba day la law te bu leen fàtte de abraha bi ko yàlla di wàcce ay xeer la ko yàlla wàcce ay xeer alam tara kayfa faala rabbuka lu ci tegu dem leen ba par aaya alam tara kayfa faala rabbuka alam yajal kaydahum wa arsala alayhim tayran tarmihim lan bi hijaaratin xeer yi xeer yàlla indiwul kënu de ay xeer benn aali lan moo ko génne Tunisie benn aali lu ko génne Tunisie Moubarak lu ko génne Égypte Abdallah Sahi lu ko génne Yemen dajjalukum haza alhijar sa yuxriju haza sana fi haza al balad ay xeer xeer yaa ngi ni xeer yi kenn du jënd kenn du jënd xeer il faut ñu ragal yàlla yàlla tabaraka wa taala moo wax dëgg yàq baaxul te gis ngeen miskin miskin muy jooy guddeeg bëccëg waaw yàlla di xool miskin muy jooy am ñu nekk ci àll yi fu gën a sori duñ lekk duñu naan yenn saa yi sax am ñoo xam ne xiif moo leen rey Omar ibnul Xattaab dafa gént yowmal xiyaam jot Omar ñaqatooy xep taxaw ci kanamu borom bi yor benn serviette di fomp Ousmane ne ko Omar lan la mu ne ko bi ma jiitee bi ma nekkee amirul muminin dafa am benn mbote bu doon jaar ci Irak benn mbote bu doon jaar ci benn pont pont jam ko mbote mi tatanos dee mbote moomu yàlla la moom la may laaj ne ma lu tax defaroo woon yoon bi mbote yaa Omar li ma lam tuslih lahu tariq lu tax defaroo woon yoon bi ñun waxuma la ay mbote ay nit ñooy dee Sénégal ay nit ñooy dee ay nit ñoo tëdd ci hôpitaux yi amuñu ordonnance ay nit la ndox nangu seen kër amuñu fu mu dëkk ñun ñuy tabax ay monument di def ay fesman kaay leen ngeen fecc fesman bi waxu leen ñaata milliards la de 19 milliards wallahi ñett yéen ñett yooyu rek doy na bu ma dem feneen fesman bi monument bi théâtre bi ñett yi rek buñ ci yàlla xoolee rek Sénégal kenn du fi dugg aljanna ñëpp nag parce que ñëpp ci bokk asaakitu anil xaq saytaanun agras ku gis dëgg nopp yow saytaane bu muuma nga da ngeen fàtte yontu moo ko wax bu leen fàtte ci hadisul kursi yàlla wax na jibril demal nga alak benn dëkk jibril wàcc gis benn nit bu baax jibril départ dem ci yàlla jibril yàlla moo gën a xam jibril bu mu nee illu yàlla mu ne ko tax alagoo leen mu ne dafa am nit ku baax yàlla mu ne demal nga njëkke ko njëkkeel kooku jibril mu ne yàlla lu tax mu ne kooku dafa gis ñu may tooñ waxul dafa gis ñu may tooñ kanamam soppeekuwul gis nga Sénégal dañoo tàmm wax ne fii réewum jàmm rek ndax El Hadj Malick fii lañ ko suul Cheikh Ahmad Bamba fii lañ ko suul. léegi nag xanaa léegi loolu dañ ngeen ci loolu nag xanaa léegi loolu nag war ngeen ko bàyyi xam ngeen ne léegi jàmm amatul fii da ngeen def ne ku ñu suñu suul suñu suulee benn nit ku baax ci dëkk rek yàlla day day xool waa dëkk ba baal leen. Imaam Ali fan lañ ko suul Irak Imaam Ali ak ñi ko gën a baax est-ce que Irak am nañ jàmm amuñ jàmm. gis nga tilk alquran wax ne tilka ummatun qad xalat laha yàlla nee na ñooñu ngeen di tiitaroo passé nañ ñooñu la ñu defoon yóbbaale nañ ko yéen ñii wala kum maa kasabtum bu dee du alquran ngeen wax ma ko tiitaroo ay mag amul njëriñ xam nga lan moo tiit la mu am njëriñ ñu tiitaroo ñun suñuy jëf ñu jéem a jaamu yàlla yar suñu bopp ci diine yar suñu njaboot bàyyi font bàyyi yàq yàlla nee na innal mubazirin yàqkat yi ñu ne ha mu ne kaanu ixwaanu shaytaan innal mubazirin kaanu ixwaana shaytaan wa kaana shaytaanu li rabbihi kafura yàlla nee na yàqkat yi mbokk seytaane lañ te seytaane dafa weddi boroomam Sé- Sénégal ñuy jël ay milliards di ko yàq ay milliards bu ma wax sax million ay milliards di tabax ay monument di tabax ay feccukaay di tabax di woote kaay leen ñu fecc fecc rek kaay leen naan sàngara kaay leen njaaloo ñu def ci di ñaata milliards 19 milliards ñëpp toog noppi kenn waxul ba pare ngeen bëgg Sénégal am jàmm ñu leen indi loon bu siin indi woon fii ay centrale électrique sax courant bi dina waaw Ablaye Wade yal na yàlla guddal fanam dëgëral ko bu baax a baax a baax yeneen bi nee nag kay fama takunu yu walla aleykum nu ngeen mel rek mu indi président bu mel noonu ñun la ñun ñoo baaxul bu nit ñi baaxoon yàlla di indi buur bu baax yonent bi saa salaam nee na nit ñi bu ñu bàyyee yàlla yàlla indi ñett yusallitu llahu alayhim sultaanan jaayir wa yaxrujuuna min addunya bi gayri iman wa yazilul barka min kasbihim wala loolu du hadis waaw ngeen bëgg yonent bi du wax dëgg yàlla nee na bu ngeen ma weddee ma nattoo leen ñett ma teg seen kaw buur bu bandi bu leen di dóor rek ngeen di yuux ñu ne ñaareel mu ne ma dindi se li ngeen di am ma dindi barke bi se- yéen a ngi nii ñëpp a ngi liggéey mais ku nekk li nga am doyuloo da ngay daw ba dee rek loo am es yi lekk ko S2E S la Senelec S la Sonatel S la bu ngeen am es yi lekk ko wala nañ leen ragal yàlla nañ leen ragal yàlla mbokk yi yàlla moo wax ci alquran walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw hmm? la fatahna alayhim lan barakatin min assamaa nit ñi buñ ma gëmee rek yàlla nee na ma ubbi xéewali asmaan mu wàcc li ñu yàlla dencal nekkul fii ci suuf wa fi samaai risqukum wa ma tuadun li ñu yàlla dencal asamaan la nekk yàlla nee na asamaan nit ñi bu ñu ma ragalee bu ñu ragalee yàlla ci suuf rek mu ubbi xéewal yi wallahi bu Sénégal yëpp nekkoon benn jëmm ñëpp gëm yàlla kenn du jooy ndox mi fi yàlla wàcce pour nit ñi dund doy na suuf si doy na Sénégal ndox li fi nekk ci ndox pour nit ñi dund Sénégal waruñu woon dem di jënd ceeb waruñu jënd dugub waruñu jënd dara ci lu ñuy luy luy sax ci suuf ndax suuf si doy na ndox mi doy na waaye lan la dañoo alku dañoo alku moo tax yàlla di leen alal dañoo alku yéen yéen a wax ne Sénégal yéen ñi jàng nii waxoon ngeen Sénégal tolloon na ay at moom moo doon deuxième lan puissance lan ci gerte mondial deuxième producteur.
producteur mondial sinon premier hein, premier parce que danoon def nii quoi balancer entre Sénégal
suuf soosu nekk ah lu bëri ndox moom nekk nit ñi nekk ah waaw lu tax nekk duñ ko yàlla moo dindi barke bi wax na yonti bi wax na ko sànq barke bi la yàlla dindi mbir maa ngi fi waaye xam nga yàlla do gis nga ñi ko doon bay yàlla da leen indi ñi nekk ay gaynde ñi nekk ay rappeur ñi nekk ay mbër ñi nekk ay simbakat ñi nekk ay footballeur ñu ngi fi toog bu njëkk ba xale yi buñ buñ jàngee ba école tëj lu ñuy def da dañuy ñibbi dimbali ci seen ndey ak seen baay ci tool yi tey ku jàng ba école tëj ngay gàddu bal ne papaya si yàlla football ne nawetaan laa nawetaan nawetaan nga nawetaan ba nawetaan jee xool leen dama leen di laaj rek fiñ mi yéen a jël coupe di ren yéen yow koo dëkk fiñ mi fiñ mi yéen a jël coupe bi non yéen fële ngeen dëkk yow cinq publics.
yéen ñoom yéen jël cinq yéen Cinq publics.
lan mooy lan moo yokk ci fiñ mi xam ngeen lu fi yokk njaaloo xale jigéen ñëpp ëmbal nañ leen wala loolu la ngeen fi yokk seen coup bi xam nga lu mu leen indil njaaloo yuuxu guddi yuuxu bëccëg courant facture bu yokk yàq robinet yi ndox mi yàq xale yi mbon gi loolu la si seen coup yi loolu la ana seen coup te tubaab da leen di nax tubaab seen coup tey boo demee ci kër yi coup yooyu xomaat nañ seng la woon xomaat jeex na kenn bayul rek léegi ne da ngeen di fukk nawetaan te tey ku ci demoon ñu may la benn terrain nga bay fukki saaku gerte ah ñaata ñaata la ñaata la ñaata la ndeysaan yal nañu yàlla yërëm bilaay yal nañu yàlla yërëm ñun li ñu nekkee dafa jar jooy yéen a ngi ree rek te dañoo war a jooy ci musiba la Sénégal toog Sénégal mu ngi toog ci volcan day jëkk ci explosé gis ngeen barki démb li daal sax mooy yéen ñëpp ngeen koy seetaan en direct yàlla yónni géej gi dóor leen duma leen duma yu métti géej gi mujj di pousse avion yi avion yi di tëmb nit ñi di dee ci kaw ñu suul ba amatuñ fuñ suul wala gisu leen loolu ñooñu li leen dal dee ñu am loolu daf leen fi raw loolu mu ngi nii te ñun ay jullit lañ ñu ay yéeféer lañ ñu toog rek di di di ya ñun lii lu ndaw la wallaay lii lu ndaw la lii lu ndaw la yi ñuy gis nii di jooy lu tuuti la ci li ñuy merloo yàlla par jour wallahi fii soo amee iman tuuti da ngay xëy sa xol bi di metti ba ba ngay tëddaat ci li ngay gis ci mbedd yi ak li ngay dégg ci rajo yi li ngay dégg ci ci télé yi télé bii Sénégal bi nga xam ne télé bi moo gën a bon ci télé adduna bi dara baaxu fi il faut ñu tuub xam nga lu rus la ci réew mi mooy dañuy dañuy jooy naan ñun ay jullit lañ te loolu gisuñu ko fen fen la feeñul loolu moo métti ci réew mi naan ñun ñëpp ay jullit lañ te njullit gi feeñul fen nanan yàlla jubal borom bi tabaraka wa taala mu ne imma tu'ridanna anhum ibtigaa rahmat rabbik tarjunaha fa qul lahum qawlan maysura léeg-léeg di nga toll jamono boo xam ne ay nit dañuy ñëw ci yow di sàkku ci yow ndimbal ñoom ñi nga xam ne way jege ñaale lañ ak miskin yi ak ñeneen ñu mel ni ñoom suñ ñëwee fekk nga toll diggante bul jànni bul toroxal wax leen wax ju neex wax leen wax ju yomb ah wax dëgg yàlla boo ko fekkoon yendul xaaral añ naanal ndox sax balaa ngay dem ah fekkoo fi lu bëri de waaye jàppal ci lii waaye est-ce que loolu am na fi loolu lañu yàlla wax tabaraka wa taala mu ne faqul lahum qawlan maysura na nga leen wax wax ju wax ju dal wax ju neex wax joo xam ne ku ko dégg dina xam ne wax dëgg yàlla kii bu amoon jox ko waaye waxuma la sax nit ñëw mais benn waay mooy yalwaan rek sarang iro eh eh ñu tonkal waay loolu la saraxe nañ sax yanni di ko toroxal yàlla waxuloon ci alxuraan wa amma saa'il fala tanhar kuy yelwaan di laaj bul ko gëdd bul ko arsale bul ko yuuxu te yow mi yàlla may wa amma bi ni'mati rabbik fa haddis nit day sant yàlla nit day sant yàlla jàngeen benn histoire benn waay joo xam ne da doon reer moo jabaram am ko fëgg bundu bi ne taalibe ngi yalwaan reer mu raxasu ñëw fekk waa ji vivre ko te ko bu ma la gisatee sama bundu def jabar ji ne ko déet mu ne ko waay caqak nga naan kii déet jamono soppeeku benn jour benn waay ñëw ci benn kër fëgg taalibe ngi sarax reer waa ji daal di jël ginaar gi ñëw di jox taalibe bi ndeke kooku mu dàqoon jour kooku dàqoon ko mooy yalwaan léegi moom mi ñu dàqoon moom moo am xaalal ndaw sa doon togg reer togg ñaari reer yi ñaari jëkkër yëpp ku nekk jëkk sëy naag moom kële ko fase kii ñëw takk ndaw si yóbboon reer bi doon jox waa ji ginaar gi dafa del si rek di jooy ni yaay ji ne ko loo jooy mu ne ko kii sama jëkkër la woon moo ma fase edde bi jeex ay at nga doog maa takk mu ne ko nañ dem ma xool ko mu ñëw xool ko mu ne ah kii de mu sonn naa yelwaan bundu këram mu dàq ma adduna day soppeeku wa tilkal ayaamu ñu daawiluha bayna naas tey yow suba sama morom kon jarul ngay am tey rek di ah xoola xoola ñi ñi ñii tey gars yi di sànni ay xeer démb nii lañ meloon ah xoolal tey am rek fekk yee démb dañ doon dox diggante géejawaay ba Petersen di dox ak seen tànk di dugg ci njaga njaay yeeg super yeeg kalandoo yi di buuxante tey àdduna jay leen ba àdduna du noonu borom bi tabaraka wa taala mu ne wala tajal yadaka maxlulatan ila al unuq ila unuqika bul jël sa loxo kott ko fii yàlla bu waxee loolu mooy bul nay bul nay bul jël sa loxo takk ko fii ci sa doq bu la yàlla waxee loolu lu mu la ci nam wax mooy bul ngott bul nay waaye tamit wala tubasitha kullal bas bul ko tàllal tamit chaque jour rek di joxe rek di joxe rek di joxe bu yàggee fa taqudu maluman mahzura bu yàggee ngay joxe joxe gis nga nit ñi da ngay ne ñoo ngi danoon jaay moo baax rek wala nit ñi ni nga xam ne nit ñee bon waa ji di joxe di joxe ba jeexal ñëpp daw naa moo da doon fuuy fuuy di jéem a jaay ne dinaa baax bos la fekk xoolal ñoom nga doon dimbali la ñëpp daw kenn dootul jaar sa kër doo ko gis gan gu wàcc sa kër ne nit ñi kenn mënul ànd ak ñoom moo tax yàlla mu ne qutila al insanu ma akfara yatamanna al mar'u fi sayf as sita fa iza jaa as sayf ankarahu yàlla mu ne qutila al insanu ma akfara bu seddee ñu ne yàlla dafa sedd wuu dafa sedd bu tàngee ñu ne wuu dafa tàng bu ngelawee ñu ne wuu dafa ngelaw bu xiinee ñu ne wuu bu mbooyee ñu ne wuu yàlla mu ne doomu aadama lu mu bëgg gis nga gis nga de doomu aadama lan la bëgg yàlla moo xam ne incha allah mbokk yi ñu yem fii jàpp naa ne li ci des ñu def ko ay question incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu
gis ngeen ne buñ ko naree tafsir